الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه في مثل هذا اليوم قبل مئة سنة إلا اثنتين نقل جثمان مولانا العبد الخديم رضي الله عنه إلى مدينته هذه بإذنه بعد أن انتقلت روحه الطاهرة إلى ربه في البقعة المباركة جربل حيث رحل عن هذه الدنيا الفانية فكان حدثا عظيما وأمرا خطيرا فقد به الدين والوطن rajulan kaana umma rajulan kaana shamsan fi lwilayati walkaramati walhidaya طالما ضاءت به الآفاق والأرجاء وطالما انتفعت به البلاد والعباد رجلا التحق بالرفيق الأعلى راضيا مرضيا بعد أن أدى الأمانة وأوضح الملة وخدم الأمة rajulan awjadahu mawlaahu subhaanahu mujaddidan mujaddidan li diini fa rabba ashaabahu an idnin minhu taala bilhimmati alaaliya abra maslakayn ithnayn awaluhuma taxliyatun طالت الرذائل الظاهرة والباطنة من جهل وكبر وعجب ورياء وحسد وبغض وكسل وبخل ورؤية فضل على الغير wa xirsin ala dunya wa ma ilayha wa taanihima taxliyatun bilfadail almaanawiyati walxissiya min ilmin wa taqwan wa tawaadu wa ixlaasin wa cadlin wa sidqin wa cifa wa zuhdin fi dunya wa tawba wa tawakkulin ala allah wa sabrin wa saxaa wa xidmatin lilmuslimina wa naxwiha wa naxwiha min mujibaati alfadli walimtiyaan wa kaana yarmi ila dalika kulli wa kaana yarmi fi dalika kulli ila taxqiqi alhidayati walistiqamati fi nnaar ila taxqiqi alhidayati walistiqama allati biha tataxaqaqu alubudiyatu alkamilatu gaayatu wujudina ala hadihi albasita min xilali wasaila minha alilmu walbiatu alsalihatu walqudwatu alxasana ñu ngi sant borom bu tedd bi subhanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ci bis bi ñu nekk di ñaar fukki fan ci weeru muharram boobaak léegi ñaari at moo ko manqué téeméer ci la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ñu bisi woon fii ci Touba ginnaaw bu am liggéeyam matee ci njareem te moo digle woon bu baa ñu andi ko bis boobu moom tey la ci tey tay tey jii lay dell ci doon téeméer at yu ñaar di xew-xew bu rëy boo xam ne ba mu xewee adduna jëpp yëg na ko diine yëg na ko réew mu yëg nañ ko ndax jëmm ji nga xam ne moo fi nekkoon te jóge fi di mawlaana al abdul xadim radiallahu anhu nekkaloon yàlla ci kaw suuf nekkin wa gën a rafet wa gën a mat nekkal ko ci diine ji nekkal ko ci njaboot ji ko woon lool ci mbaax mën nañu wax ne kenn la ko wecci woon ay junni junni yi te sunu borom waxoon ne Ibrahima umma la moom mii mënees na ko wax ci moom radiallahu anhu nekkoon ab jant ci mbaax ab jant ci tedd nga jant ci gindee ak tegu ci yoon ak tege ci wuy ji boroomam ànd ak ngërëmul yàlla ngërëm yàlla ndax yàlla defal na ko taw tawfiq ak taysiir ba mu liggéey yàlla liggéey mu gërëm yàlla gërëm ko it ndax la yàlla bëggoon ci moom lépp def na ko joxe na kóorite gi ñu ko dénkoon leeral na ngir ba mu leer nañ liggéeyal na xeet yi ci koo xam ne yàlla ko fi indiwoon ngir mu yeesalal ko diine bi mu daal di jóg nag ci liggéey boobu te teg ko ci ndigalu yàlla mu jaaree ko nag ci ñaari bunt yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel baax a baax ba mu ñëwee dafa wax ne dañ koo jox ndigalul yar nit ñi ci himma yëkkati seen yitte ba tax ñu mat liñ doon doon ay nit unité xam ne yàlla leen moom moo leen fi baax yar boobee nag ci ñaari bunt la ko soob bi def mooy tàqale nit ñi ak seeni sikk mooy dindi ci ñoom ay li nga xam ne ku mu a ci yow doo mat li nga doon ku mu ne ci yow doo mën a am ngërëmu yàlla loolu la njëkk a fóot ci gaa yi ko toppoon yëpp dindi ci ñoom ak réer ndax réer mooy ndey bon bon yi fexe ba ñu xam yàlla xam seen boroom xam seen bopp xam lu leen fi indi ak lu tax ñu war fee ne ak nuñ fiy nekkee yar leen ci ak woyof dindi ci ñoom ak rëy ak rëy nga xam ne mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi ginnaaw bokkaale yàlla yi waaye mooy bàkkaar bi alagoon iblis laanatullahi alayhi ba génne ko ci xéewal yàlla ya yërmandeem bi dindi ci njaboot gi ak rëy ba ñëpp woyof toy lu sëb sër rëy rëy fa yàlla yi danga xam ne ak jaamu yàlla nga nga bàyyi xel loolu booy dox foofu saa su nekk waaye dindi ci ñoom mbooleem sikk yi nga xam ne yu fës la ak yu nëbbu réer gi la bokk rëy gi la bokk ak naw sa bopp naw say jëf ndax jaamukatu yàlla nga mu dindi ci ñoom xam ne lépp lu yàqale dindi ci ñoom njistal fexe ba kenn ku nekk ci ñoom looy defat yàlla rek tax dindi ci ñoom ki ñaan kenn du ñaanal sa morom ndax yàlla cëree dindi ci ñoom mbañeel di bañ lu bon rek lañ war a bañ lu bon rek lañ war a bañ mu dindi ci ñoom bañ nit bu teguwul foofu dindi ci ñoom ak tayel xam yàlla dana bind ngir ñu yëngatu doo ci kenn muy def nelaw ak toog toog loxo yi neen di liggéeyam waaye dindi ci ñoom nit koo xam ne comme mu gis jàpp ne moo la gën nit koo xam ne comme mu gis jàpp ne moo la gën loolu mu dindi ko ci ñoom donc lu waay rëy rëy daraja saa boo rëy jàpp ne yaa na ci ci ron ko ndax gis sa bopp jàpp ne yaa gën ñeneen ku ko def rek yaa ngi ci lu rëy sëriñ bi noonu na ne ak kalbu bu la rombee nga jàpp ne yaa ko gën la gën kon mu dindi ci ñoom ayib yooyu yëpp waaye dindi ci ñoomit bëgg àdduna nga xam ne mooy gàkk yëpp lay tàmbale ñaare ak yu mel noonu kon mu fóot leen ba ñu set mu fóot leen ba ñu set waaye yemu ca duy leen ba ñu koy lii tax nit nite lii tax nit a gën lii tax am cër ci yàlla mu def ko ci ñoom mu def ci ñoom xam-xam daf ci ñoom bàyyi xel yàlla muy taqwa bu ñu teewee ak bu ñu fàddoo topp ndigal yàlla yi bàyyi tereel yi daf ci ñoom ak njub daf ci ñoom fonk tuub daf ci ñoom ak fegu ak dëggu daf ci ñoom ak maandu daf ci ñoom ixlaas mooy sellal lépp lay def yàlla rekee tax lu yëngu yu bari bari bu yàlla taxut amul njëriñ mbokk yi liggéey bu rëy bu mel noonu la sëriñ bi liggéeyoon ci ñu àndaloon kon bu ñuy fàttaliku bis boobu war nañu bàyyi wàlla xel yooyu daf ci ñoom nag nangoo liggéey ci xitma mooy jaamu yàlla ci jaamam di def ci ñoom ngir yàlla ba bàyyi fi ay nit ñoo xam ne ay bidiw lañ ci mbaax ak njub ak ràññi te loolu lépp nag lam ci jubloon rek mooy bëgg nit ñi am ak jindiku tegu ci yoon ndax àdduna fii ku fi jindikuwul rek ci réer nga nekk bagage yoo maanaam lu mu bari bari ànd ak gindiku amul ko dara boo xasee gindiku tegu ci yoon yàlla nag ñàkkatoo dara moo tax bëggoon di gindiku moo tax mu leen doon jaarloo jaare ko ci xamal leen waaye wutal leen béréb bu set boo xam ne boo xoolee lu baax ngay gis boo dégloo lu baax ngay dégg waaye wutal leen ay roy waay mu ñett yoo xam ne fu ne ci war na ko bàyyi xel xam fexe ba xam li nga war a xam ndax mooy tax nga xam sa bopp lu la waaye fexe ba fi nga nekk it nekk foo xam ne da lay dimbale ci baax doo ko dégg lu dul lu baax doo fa gis lu dul lu baax waaye am nag ku ne ci sa kanam nekk sa roy ngay xool ci moom mu lay soññ ci mbaax boo nekkee ci safaan mu tàggale la moom sëriñ bi ci jumtuwaay yooyu ci la defaree gaa yi ñu defar bañ nekk ñu rañ kon baax na loolu mbokk ñu fàttaliku loolu waaye ñu bàyyi xel ne nag mag ñooñu baaxoon ba ràññee ko gën seeni moroom la leen defaroon rek moo ñu defaraat la baaxaloon mag ña mooy baaxal ndaw ñi saa bu ñu wanee ginnaaw la defaroon mag ña noppi nañoo defaru kon ñaari mbir yooyu nga xam ne sëriñ bi fóot ba mu set ak duy ba mu fees da xam ne ku jag yooyu la jaga faaw nag kon ñu daf yitte dolli yitte njaboot gi fexe ba jagal leen te jaare ko ci yooyu fexe ba jagal leen te jaare ko ci yooyu kon ko bis yu mel nii fase la war a doon ngir ful suñuy coono ngir gën a góor góorgóorlu ak gën a dox jëm ci jàng yi suñu jàngaloon te muy jàngale yoo xam ne ci yàlla rek la bàyyi ko te it liggéey la rek la ci jublu nañ ko def ci sunu bopp daf ko ci suñu njaboot ndax ndono la ñu yeewu lii sëriñ bi di wax ne bu mu laal suuf ñu sax bu bañ a laal suuf loolu nag mooy faw ñu defar ba noppi ñu defaree ku taq tilim nag mënta setal kon faw ñu set wicc ba noppi ñu diw ñu bañ fees ñu door mën a defaree kon liggéey bi foofu la nekk mbokk yi faw ñu bàyyi ko xel ndaw ñii nañ dind ci ñoom yii sëriñ bi dindi woon ci mag ñi ba tax ñu gën waaye nañ def ci ñoom li sëriñ bi defoon ci mag ñi yar leen ci mbaax ak diine su ko defut aaya na ci suñu kanam joo xam ne bu su ñu ko jàng suñu borom wax ne baax yi fi jaaroon nekk ci lu baax ñe leen topp ci baax waaye ba ñu jàllee dañuy jékki-jékki gis meen mbooloo mu ñëw di tuddoo seen tur waaye nag lañ fi indi woon lépp ñu sànq lañ fi indiwoon lépp ñu sànq fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wa tabaau shahawaat ñooñu nag fa ñu mujj baaxul ndax fa sawfa yalqawna gayya yàlla musal ci ndono lu rëy nga am ko man caa jariñ jariñi ca nga sàggan ba jëriñu woo ci waaye loro ca sax kon faaw nag ab liggéey la saa bu ñuy fàttaliku sëriñ bi dañ xam ne lii la fi nekk woon fi indi ñi mu fi bàyyi it nii la leen bàyyee da lañ leen defar du rek bàyyi nit ñuy dox seen sabab xëy mel nii déedéet dañ leen a fóot bañ set ñu duy leen bañ set koo bëgg mu jag nag da nga ko fóot duy kon liggéey la boo xam ne ñu ñëpp la war rawatina ku ne ci njabootam fexeel ba sa njaboot li war a xam nañ ko li leen wër muy sa kër ak li nga yilif fexeel ba mu jat buñ fa dégg safaan buñ ko fa gis waaye fexeel ba mat roywaay ci ñoom wala nga wutal leen roywaay bu mat roywaay boo xam ne buñ dañuy gis te moom di ko dégg lépp lu jag lay doon su waa incha allah danañ jag wala ga ñu ànd ak yéegal bi ci baaxu sëriñ bi ak ñu mel moom yàlla yàlla